ah man daal xam naa ne àll moom àll rolam dafa am solo de waaw ah, dañuy topp soxna bëtër ak euh, maar te fàtte àll dafa am rol de te xaar leen ba kii dem ci kanam ngeen xam àll rôlam am na solo de macha allah ñoom ñëpp seen rôle am na solo waaye moom it ah rôle bu am solo lay def parce que boo déggee euh, épisode bi passé la jabar ji doon defal na mu neexee di ko defaral ay tànkam waaye terewul ba mu duggee ci biir famille da ko rejeté won ko ne man sama famille laa am loolu ay njàngale la nit ñi duñ ci bàyyi xel mais njàngale la de dalay won ne nit muy jabar muy jëkkër bu dee sa jëkkër bu mu la tàqaleeg sa famille bu dee jabar itam bu mu la tàqaleeg sa famille de waaw euh, nu mu tuddati sax maa fexe na ba jabaram tàqale ko famem waaye moom mu ngi tenir famem bu baax waaw wane ne mu ludul famem ak lu mu métti métti métti ngi toog ci biir famille bi te nanguwul kenn ku dugg digganteem ak famem ba ci jabaram kon xam nga ne keneen du jóge fële du dugg ci biir famem ak lumu mën a joteeg famem rek moom mi ngi leen di tenir mi ngi ànd ak ñoom ci lu ko neex ak lu ko naqari te loolu dafa am solo de waaw dafa am solo waaw mënoon na def ni ni ni ni maar waaw mu metti rek mu daw bàyyi jigéen ñi waaye defu ko de mi ngi toog ànd ak ñoom waaw dëglu conseil yaayam yi nga xam ne jóge na fi. soo bata ba mu am na ko ma def suuf di am na koy gënal. mooy copain borom kii bi borom boobu am na ku muy génnal ci su ko am na ku muy du marqué la nekkal ni na ku muy génnal am na ku mu doon génnal mooy sunu jeune de lumière mooy mooy jour bi mu comment takk bi mu doon def xam ban dëkk lañ doon def mooy copain boobu boobu jëndaloon xaw ma la la ko jëndaloon jour boobu ci hôtel ba lañu tombé moom ñaar combi combien de fois deux fois la am yaakaar naa ga mooy ku ko wax ba nga dugub bi kooku loolu solo batam la su lu ko neex di Soxna Bator nga yaa moom day dem di liggéey ay ay ay juróom liggéeyul day dem def lu ko neex mu ñëw Soxna Bator yàlla ma yàlla baal boo xoolee ba ci biir bii théâtre bi ci biir biir bi secret yi en cent pour cent génn boo xoolee ba ci bi Soxna Bator est ak doom ak gaañ bu borom kii bi res borom res sama jaar boo xoolee ba ci biir biir nag laa wax. wallaay de so man maa dem ko jéppi instant jéppi ko laa ko def sacrement que bu ñu bu ñu benn dagaj toog sa saal nag. di wax ne àlla miraas àlla fu mu jàppana faj ko waaye ustaas bi lu mu wax rek moo tax àlla dellu gannaaw waaye bi ñu bàyyi woon àlla rek ak maandoo kër gi kenn du ko jaay te du ko miraas de day bu baax di kër bu ñëwee fekk bi ci néeg mu ne génnal fii balaa àlla di la fi fekk dama nag àlla neexoo ñuy jàppante nga fa ne maandoo dafa maandoo dafa de mu ngi bàyyi bu baax àlla mu ngi bàyyi bu baax àlla bilaay bu nekkoon toon ne comme sëriñ bi lu mu wax ne ustaas bi lu mu ñëw di aussi mirage kon àll du dellu gannaaw te kër gi duñ ko jaay du mujjee fet waaw. waaw salaam maaleykum salaam soxna si ñoo lay ziar di jox sa wàccuwaay bu baax si loo nekk yaa ngi si jaamu baax a baax suuf si nga baax ziar nañ la bu baax di la jox li nga wax nag dëgg la nag li nga wax noonu dëgg la xëy na xëy mu am ak doom gaynde boobu noonu mun na am nañ doom de parce lii. xëy na am am naa moom doom ndax lu yàgg yàgg di dina feeñ xëy na soxna Bator am na doom xëy na am na doom waxu ko maar. gars mi da normal gars mi da koy menacer normal da koy menacer moom ah bu ñu xoolee ba ci biir bii dee na waar daal mais en tout cas nañ leen si ba si kanam rek secret bi pay feeñ yëpp ay feeñ lépp lépp lépp feeñ. Soxna Bator Soxna Bator dafa danger de dafa danger tellement. may lool otage mais bu ñu xoolee ba ci biir daal am na lu fa lam dem de mooy ñaar xale góoram yooyu ñuy génnal ñooy ah te soxna Bato sax bugg amante ak kii ak euh, maarloo sax doom bugg amante ak sax maarloo doom daal. moo tax ma ne la xëy na dafa am ak doom xëy na daa am ak moom da xëy kooku tamit moo ko menacé moo ko sa sëy biñ ci sëy boo ci amee doom dinaa la def nii dinaa la def lii soxna Bato. am na benn côté du ñamewut de dafa ragal maaroo rek laa xam ne soxna Batoor ñeme na ko waaye soxna Batoor amul fit de dafa ragal. ndax maa ngi soo bu ko gaan bi fekkee si boîte bi ba ko bu mu fekkee gaan si boîte bi dafa affolé dafa tiit moom soxna Batoor si wàllu boppam dafa affolé carrément dafa tiit parce que ko lu muy def gel bi nekk ku toog ak gaan boobu soxna Batoor dafa ñëw bi gel bi jóg. soxna Bata naroon dem Gambie menacé ko mu jox ko ba pare ko soxna Bata si kër gi mu ne soxna Bata xam nga bu baax lu tax mu ñëw fii da koo menacé am na seen problème bi xam naa ñaari copain ñaari xale yu góor yooyu dina sonn de soxna Bata dina sonn de après à la fin dina sonn trop sax. ah instant bi Marlo sonn na de Marlo moom instant bi sonn ñu jàppale ko rek ñu aawa yi moom ñu jàppale ko. ñaareel yi moom ñu bàyyi ko noonu <laughs> soxna Batoor de billaay doy na waar ana ñaareel yi nag génn leen génn leen instant bi aw yi kese ñuy waxtaan fii génn leen kon kañ la soxna Batoor am doom soxna Batoor am na doom nii man kay yéeguma ko xam naa est-ce maar yéegi na ko sax maar yéegu ko de ah, kii maar maar maar maar loo jowul jàppale benn côté moom jarul jàppale xanaa aaw bi kay ndeysaan mbëggeelam la topp rek ak du ak euh, mu amante ak doom bu jigéen rek mais wax dëgg neex yàlla moom maarloo moom jarul la jàppale waaw xanaa jabar ji aaw bi moo ko bëgg rek mais wax dëgg neex man bu mu nekkoon aaw bi mu ngi retourné parce que ak lépp lu ma def naa traité lu ma def dima tooxal sama digg naawle ah di tooxal sama doom mu retourné di dellu man de mënuma ko man moom lu mu de man mënuma ko dëgg neex yàlla xëy na peut lu mu nekk théâtre rek la. waaw combien de gens du lekk du naan ah doo ma jox sama région doo ma jox sama dara ah c'est trop c'est trop Marlo mooy loolu de Marlo jarul faral de da jarul sax défendre lu ko ko liggéey liggéey liggéey jarul de ñu koy défendre. xamuñu ndax soxna Batoor am na doom de ñun à 100 pour cent xamuñu mais man juste man damaa wax noonu rek mais xamuñu ndax moom am na doom parce que noonu rek la mun demee gaa kii soxna Batoor. il faut mu am benn doom si si ñaari copain yooyu il faut mu am si kenn doom loolu la mun la la la affaire théâtre di neexee la di théâtre di amee sens en même temps mais soxna Bouteille dafa ay caprice amul amul doom amul benn doom si si tubaab boobu ak si ñaari copain boobu du am sens il faut mu mélanger ko. waaye il faut am ko xam vie privée wala ko xam sutura ku ku suturaan daal ñun ku koy menacé chaque jour ko jëfee waaw mais en donc en 100 pour cent xamuñu ko wax dëgg neex yàlla mais dañuy wax nii rek ku nekk dañuy joxe sa xalaat di wax. walla xarit bi gi kooku kooku muus na de kooku xam na soxna Batoor xam na baax nag kooku soxna kii bi gi su ko toppee rek day xam sa kër yëpp xam sa kër soxna Batoor kooku moom xale bi moom. war na xam dara. salaamaaleykum waa groupe bi maa ngi leen di jaare bu baax a baax ñu ma fekk ci porte bi et tout maa ngi leen di nuyu bu bare. asalaamaaleykum waa groupe bi siyaar naa leen bu baax a baax taalibe yaayam la baa yéen a ngi am jàmm bu baax dégg naa leen di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yéen yéen ñu fekk ci bunt bi yëpp siyaar naa leen bàyyuma kenn yéen ñëpp siyaar naa leen bu baax a baax a baax i wax ni leen ana soxna Bator yi ñu soxna Bator moom deuxième femme day day day xajam soxna Bator daa xajam kooku yàlla na jënd kër gi waaye kër gi moom moo ko war a jënd moom soxna Bator ah, rek dëkk bi neex day toog ci kaw donkaasi asalaamaaleykum mbokki famille Sénégal nuyu naa leen siyaare ndax leen seen waat ba leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen di leen wax naka suba si mbaa ñëpp baax di leen kenn jàmm taal ba yaayam laa fekk ci bunt bi di nuyu Xadi Fay Mami Saane sama yaay Mareem sama yaay Mareem boo ji daal ci am chance parce que gëm naa loolu dañuy tax a gaaw après nag ñu déggoo ji su ko jëndee su demee ba amatul fu mu aw ne doom la dugg ci la door a mën soppee famille Sénégal ah moo fekk ci buntu Fatou Faye lay doon doom bari doole sama doom baay la mu naa la. macha allah macha maa ngi bi nag taal bi seex moomu soxna Marème. ak beneen Marème Diouf bi fay na ak lu ngeen ku mën wax rek lu bon na ngeen ko wax soxna baaxul baax baax lu wut soxna kay ñaal ba mel ne soxna yal ci yàlla musal soxna kay moom instant yi moom fii réew mi moom aaw ko yor moom. man de Fatou li ma xalaat moom kër gi instant yi malal moom yaakaar naa malal moo koy jënd man sama xalaat bu ndax instant yi kenn ko ne sa xalaat rek nga yor man naa xalaat naa ne malal moo koy jënd si jënd dee am ndax li mu ko waxoon ne ko maa ba léegi loolu moom jógu ci. waaw ndax gis la biig bi mu demee ndeysaan waxtaan ak moom moo ko jox xaalis boobu te day wax rek mais du fayu papaam bu caaxaan jeexee ba dëgg des du fayu papaam xaalis bi day wax noonu biig rek waaw mais moom moom gàcce dina am foofu ndax li tax gàcce dina am yaakaar naa malal moom yaakaar naa lii daal mooy jënd kër gi man sama xalaat bu gàtt loolu laa xalaat faatu waaw am nañu jàmm yéen waaye kër gi moom instant yi moom ah kër gi jax na gan ñaa ngi koy toj laa wax salaam salaam sama waa groupe sama si la nekk ba ngeen am jàmm nekk seen journée maa dafa teew nii tamit. ma fekk si waat la bu ko jëndee lay gën a am sens sax malal bu ko jëndee kër gi si gën a am sens ak euh, fiancé kii bi mu tudd sax doomu maarloo bi si lay gën a am sens waaw parce xale bu góor côté gu ne dimbale na fa maar. maar am amoon na ñu bëggoon agressé xaw ma maar xaw ma troisième femme bi mais moom moo sauvé woon encore maar deuxième première fois bi waaw loolu la waxoon mooy seen sap seen seen sapeur pompier moo koy jàppale maar kooku xale bu bu góor bi moo leen di jàpp parce que moom fu fu riche daal fu am. ah asalaamaaleykum maa ngi fàtteew nii man Khady Faye yaakaar naa Fatou la de bu ma juumee Fatou la tudd de fii nii dama fekk si bunt bi yaakaar naa daal yow Fatou yaakaar naa ko de. dama xamul sant bi mais Fatou la yaakaar naa de waaw man daal dama si am yaakaar ndax kenn bu na sa xalaat ngay joxe mais malal daal la yaakaar ne moo war a mën a jënd kër wala faru bi rek ndax mën na jox tamit bii nga xaalis ne ko bu ma ci feeñ xam nga yaa ma gën a xam ndax moom am na ci ñoom yéene ndax xam nga joxoon na leen joxoon na yaayam kayitu ko ak bee màgga mais lépp soxna moo ko yaakaar ba njël ba bii nga delloo ji ko xam nga mais ba léegi li ñaan bëgg du bañ ba léegi waa ji ba tey tey la gën a bëgg bii de ndeysaan am ci moom yërmaane nag dégg bi mu naan ko ba sa tante du xamal ne yaa ngi jàng xam nga xam bii nga xamul fi muy waxee mais waa xam na lépp na ne ko tax fexeel ba sa tante bu mu xamal ne ngi jàng ah te ndax bi nga demaatee école bi mbaa daanuwaatoo mii woo yooyu xam nga kon xam nga kon gaañ bi xam na lépp moo tax ma ne la instant yi ñoom ñaar ñii rek laa am yaakaar ne ñoo war a mën a jënd kër gi malal mala grand bi nga xam ne mooy génn bii nga daf koy joxe xaalis rek ne ko bu ma ci feeñ pour ñoom biige des ci kër gi te noonu la war a demee sax ñoom biige bu ñu génnee kër gi théâtre bi du am sens du mës a am sens sa théâtre bi nag wax dëgg si yàlla nit ñi dañoo xaw a maar ci théâtre bi nit ñi sonn ci affaire yi métti bi lu métti yi wóor na yàlla da ngay dem ba doo ko mën a te seetaan ndax xol bu jeex ah lii dafa métti biige moom bu ko yënalee kër amoo sance respect dootul amati foofu parce que benn respect rek weesuwul rek mais say say sa papa bugg la dafa la abandonné abandonné sa yaay abandonné sa yaay manque de respect rek weesul foofu comprendre mais comme man lu ma jàpp rek man ñu man sama xalaat bu gàtt malal rek moo am moo am am sens bi malal jënd kër gi waaw malal bu jëndee kër gi moo am na sens théâtre bi dina am sens mais quant à bu fekkee fiancé kii bi moom du mënul jënd kër gi mënagu ko jënd parce que ñoom nangu